باسم الإله فين الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله باسم الإله فين الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من هو الأمر يا من لا شريك له وسيق وما لواء لفيك يا الله نبي تبامل نبير بامل غورا غيس غور يي واتي ييسول اوبول ييخوليت ديسول بيول ورول يا كمتي ولاول lu xeb ku ñuy teete jayoog jayoog wutu tur do gis mu gar ko ci mbir laajal ma ñuy soobi ñoy xam bi galam xati du teug bakar du tuliw ay gawar bu mu yar du ci mu lef du mam mo fas du lu peti mom imam la de su sabal xol ta set fil alamaini du gotte mbaa mu ñakoy ña jox ak ña ko laajee yam du tontu lu dul lu sa doxal guy ah. teg tey ree di taate ma far ko ci sant ak bàkk moo di danay ah. sëriñ Basiiru turam waaye munta xaasaati na yàlla dolli ko wér ak jàmm ak gudd fan dafa soppeem dul bi jooke jàddaate anta rahimun nasim arjo bi rahmati ألا ألاقي درا منك يا الله ملي يمين وخل بصول يا مليكي بلا حساب لي دين منك يا الله يا كار جدول تصدق يا كار كو يا كارو maami sëriñ Mbàkke Madina fi yaakaaru